ki Sébikotane ci ay jafe-jafe la ñuy dund rawat na ci wàllum paj mi lee ndax centre de santé bu yàgg buñ doon xaar ba tey gisuñu ko ba tax nag maire yi bi nekk ci commune bi jàpp ni du yàgg ñu am centre de santé boobule. Euh, xam nga Sébikotane ni population bi di yokkoo dafa dafa bëri ndax Sébikotane nu mu fu mu nekk la ci région de Dakar. donc lool moo taxoon ci discussion yi ak APIX ñu demandé woon état du Sénégal mu tabaxal ñu centre de santé léegi projet na war nañ ko mën a tàmbali incha allah loolu dina nekk lu am solo ci population bu ko Sébikotane pour ñu man di fajoo fii waaye en attendant loolu nag ñu ngi góorgóorlu ànd ceeg ay partenaires yu mel ni Someta pour que ñu mën a taxaw jànkonte ak jafe-jafe yi nga xam ne askan wi ñu koy am ci wàllu wér gu yaram ngir wàllu askan wi ay initiative yi mel ni consultation gratuite amal nañ ko ci dëkk bile ñu ànd ci ak ambassadeur bu Chine moom mi mu àndi médecin chinois lëkkaloo ak médecin sénégalais ngir jàppale askan wii lee son excellence ginnaaw bi ma dalalee wax ma ne dina def dara pour Sébikotane ay weer après tey mu organiser journée bi ànd ñu fi ay euh, équipe médecin chinois yoo xam ne ñu ngi door a jóge Chine ci huit spécialités juróom-ñetti spécialité ñu ciy consulter population bi gratuitement ànd ci tamit ak ay médecins sénégale ñi nga xam ne ñu ngi fii ñoo ànd vraiment di consulter population bi gratuitement buñ paree jox leen ay garab ñi nga xam ne dañoo laaj suivi tamit vraiment dañ leen accompagner ci hôpital des enfants ñu man leen suivre. lu toll ci juróom téeméer ay doomu aadama yoo xamante ne consulter nañu ci bés bile tax nag askan wi war nañ leen dimbalee ci prise en charge ñoo xamante daal dañoo gis ni jàngoro am nañ ko ci consultation bile ñoom nekk lu ñu bëgg mooy entreprise chinoise bi di métal nekk ci gox bale mu daal di leen wàllu bu baax a baax